donc ba tey ci seen scandale di jour ci projet boobu kii di Ousmane Sonko ñu dem lu kàddu yi mu yëkkati. mënatul def résultat mënul def résultat yàgg naa ko wax ci dellu leen ci samay vidéo depuis 2014 bi ñu génnee seen plan Sénégal émergent laa ne kii du mës a def résultat parce que plan bi baaxul te dama ko argumenté teg ko ci yoon sénégalais yi suivre nañ ko li tax sénégalais Euh, attaché wu ci ñun xam nga ni du du du dañoo yàggat seet suñu discours xool li ñuy waxanteek ñoom di dox di ci teg seen bët nag defe naa gone yi demoon nañ ba génne Sonko waxoon na ko luñ leen mos wax nag génn na feeñ na kon su ma leen nee ñetti at yi Macky Sall mënul def Sénégal lu tax ndaw ñi am liggéey wala ndóol gi wàññeeku wala nit ñi faju bu baax wala dañ war nañ màgg munu ko amul moyens amul gis-gis bi amul compétence bi amul équipe bi kon li fi des xam nga Sonko wax ju bëree ko sonal ndax gis nga sunk man dama koy bëgg défendre mais man dañ may tegal ay vidéo yoo xamante ne wax dëgg fa yàlla lii dangay xam ne lii du montage lii Sonko moo ko wax te Sonko moo ko wax. moo tax gis nga du du gis nga doomu aadama du loo gis wax di fois nga gis dara xam ne lii danga cee war a wax nga noppi ñu naan kii pourtant waroon na wax lii waxu ci. tey am na loo xamante ne bu ko waxutoon ci plan Sénégal émergent wax yi du bëri ton noonu du ñu am lu ñu ree mais Ousmane Sonko dafay may chaque jour ay noonam lu ñuy koy reetaanee te moom li ma gën a métti mooy duñ ko sosal dañuy teg vidéo yoo xamante c'est irréfi irréfutable xaw ma irréfutable irréfutable ni que lii Ousmane Sonko la maanaam kenn mënu koo laam-laame da ngay xam ne lii Sonko la bu newee moom bi bi ñu tegee plan Sénégal émergent waxoon na ni baaxul mu teg foo leer tey ak lu mu métti waru koo doxal man loolu laa gëm ak lu mu métti métti métti métti waru koo doxal wala ah, ah man ka ne woon naa plan Sénégal émergent bi baaxul parce que au fond xaw moo lu fa nekk tey gis naa li fa nekk léegi nag wax dëgg fa yàlla donte waxoon naa baaxul mais gis naa ni li ne ci biir amal na njëriñ sénégalais moom dañuy continuer mais doo ko di yëg boo ko waxee ñu naan la di ngeen opposé seen xol yeey baax ban xol moo fi tàng li ngeen fi def la ñuy wax li Sonko wax la ñuy teg di ko nettaliwaat doo jox leen ko en direct ngeen koy seetaan ngeen naan ay da kan moo fi opposé kan xolu kan moo fi ba xam nga lan moo ñu metti vraiment xam nga lan moo métti sénégalais yi li ñuy gis nii lu ñuy dund nii à cause de ce nouveau régime looloo ñu métti mooy un premier ministre boo xamante ne mën naa ne VAR moom moo tax ñu créé ko est-ce que bàyyi ngeen xel kañ lañ commencé utiliser VAR fii ci Sénégal sur les réseaux sociaux yàggul ci période Ousmane Sonko la gën a bëri waxuma nag ci la commencé Sonko nee na projet bi baaxutoon projet Sénégal plan Sénégal émergent baaxut plan Sénégal émergent moo jur BRT bi moo jur autoroute bi nga xamante ne ku ko bañ mu ngi ci jaar ku ko bëgg mu ngi ciy jaar moo jur terre bi ku ko bañ mu ngi ci jaar ku ko bañul mu ngi ciy jaar forage yeeg courant beeg ndox beeg avion bii nga xamante ne wax dëgg fa yàlla dëkk bu mu wàcc ñu ne ah Air Sénégal ñëw na gis nga nit li ñuy naan pourquoi ñu naan xew bu amee ku nekk na xool li gën a rafet lu tax ci ci julli ñu ne la vendredi bu jotee jëlal bi nga gën a fonk sol ko dem ci néegu yàlla bi labi ne fait pas la moine mais ici dans ce monde d'aujourd'hui c'est labi qui fait la moine nit ñu ngi koy naw ci yëre ñu ngi koy naw ci liñ ko fekk am na ñoo xam ne seen day tilim mais tey bu ñu woo benn nit woowoon ne leen ak ah, tey su bëgg naa la set si Zeyna tey day fexe ba defar këram ba kooku bu ñëwee du yóbbu turam wala du ne Zeyna dafa salte tey Air Sénégal bi dëkk bu mu wàcc fierté lay doon président Diomaye di ci wàcc ñu koy photo di ko vidéo ñu xam ne lii kat àbbuñu ko dañ koo jënd ak suñu alal donte day métti mais bor yonanti bi yonent bi daan na leb bor araamul li araam kay mooy sàcc ak fen looloo araam bor fii lañ koy fekk fii lañ koy bàyyi investir eh, investition eh, investissement sax boo koy def day day day day nekk bor bor bi mooy lan mooy cet espoir bi ngay am ni que maa ngi investir lii mais ñaan naa yàlla mu jural ma dara tey banque yi dañ lay lebal cent mille francs ne la da ciy teg dix mille francs dix mille yi lañ moom intérêt léegi ñun Macky indi ñu Air Sénégal bi Sonko ne waa dañ koo war a mën a jaay ñu ngi xaar nag ndax dina ko jaay wala du ci jaay yeegu ci yàbbeegu ci waxagu ci moom lu mu waxoon yow bu ñu ko nee waxaatal lan lay wax Sonko lan lay wax booy wax ñu naan la di nga opposé cinquante ans bu pensez que les gens sont fous à ce point di toog fii di fal ñoo xamante ne jàpp nañ ni li ñu mës a wax ak li ñuy def la plus plupart d'entre li ñuy wax ak li ñuy def méngoowul Pape Diouf wax woy na ko nit ki da nga koy jàpp ci waxi démbam ak jëfiteyam bu méngoowee nit kooku jar naa jàpp mais koo xamante ne waxi démbam ak jëfitéyam comme safaan ak ndox fu ñu dajee kenn ki dee bàyyi moroom te kii dee xam nañ ko muy safaan si kooku kooku jarul jarul jarul di rey sa bopp jarul di xataraayu seen arme nag miis nañ ko muy les injures saaga man léegi quand je vois des commentaires su ma gisul saaga je me suis dit eh, sama émission bi jàllul wala li may wax peut-être kon kon duggul ci xelu Sénégalais parce que saaga rek seen xol yi dina tàng jënd leen meew ban xol bu tàng ngay liggéey weer dee ñu jox la as tuuti bi nga liggéey mu wóor na lii yaa ko liggéey di yeewu ci jàmm di julli ci ci ci ci juróomi waxtu yi di sant yàlla di dégg jàmm say waajur na si jàmm nga ne si jàmm en paix intérieure naan ay xol yu tàng ki am xol bi tàng mooy ki digge lu mënta def ki am xol bu tàng mooy ki fen ba ñëpp xam ne dañoo fen ba liir yu ndaw yi sax xam ne kii day fen kooku am xol bu tàng ndax lu gën a métti mooy xale bu ndaw toog devant les caméras di wax ay kilifa ni dañuy fen te kilifa yooyu mënuñoo indi benn preuve ni ko fenuñu mënuñu laa toppee dara ndax li ngay wax dëgg la donc nag Sonko plan Sénégal émergent baaxutoon malheureusement nag yow ti vas cheminer avec ce plan Sénégal émergent te ragal naa nag nga ànd ak moom ba mille horizon cinq bu dee continuer ngeen nekk fi loolu laay ragal nag li nga bañoon <laughs> yàlla teg la ko xam nee nañ eh, tànnkatu dàll ci ay carax lay mucc yàlla baax na yàlla bëri na sutura